music. Just the better, better, better ah. marble music. Just the better, better, better marble music. Just the better, better marble music. Just the better, better, better marble music. Just the better, better, better marble music. Yes, I. Brakaza, aslakum, aslakum, Canal Row, Canal Row. You welcome again hein, ah, ci seen émission rubrique Cafka Mbedd présentée par votre cher ami frère Copper Row. Yeah man, avec Yop Dip qui n'est pas là aujourd'hui. ñu koy kébee de passage ah yaa ma gën a ndaw mu ngi ci tunnel yi di try ay yeneen i araf lépp pour yéen you naw lépp pour bégal leen that's what it is tey nag you know dañ fi am benn bro bu tudd you know AFMC Mr AF lañ fi am you know nekk ci benn crew bu nekk fii nii Mbour Friends Family yaa Friends Family ñuy def hip hop ñuy def ay affaires yu nice ah yeah man Mr AF nag moom ben dafa am benn single bu mu def single bu graaw boo xamante ne ben def ci clash ak lu biri waaw affaire bu grave ak lu biri la ciy clash donc dinañu développé ci yooyu yëpp ah euh, avant tout dañu koy bàyyi mu présenté wu xam nga nuyoo ñu soog a jàll ci waxtaan bi you are welcome in Thiafka Mbed Brakas Up Ngakom Roof Dara Du Sedd every week présenté par Copper Road yes I Mr IF yeah yeah maa ngi lay jox micro bi sax maan xam nga you welcome maan dalal jàmm you know ci ci Cafka Mbed. Cafka Mbed waaw di bëggee audit auditeurs yi ak auditrices yi. yes yaa Mr A ay artiste rappeur from Bourguet. yëpp maay kebe waa Mbambi music. di di taaxirlu question yi. ay ay noonu la demee ñun tamit ñu lay kebe di la give thanks. yeah a AF déjà AF mooy lan. AF AF mooy mooy sama boo déggee AF man alpha laa tudd bi nag laa jël xam nga cherché wu ma parce que bi may nekk xale gars yi ma doon wax AF léegi bi commencé rap nag ma jël ko def ko Mr nekk ci benn turu Friends Family. Friends Family yéen. Euh, ñaata person ngeen. yeah friend family deux lañ quoi di di di kebe sama bro Mr Barham. waaw parce que émission bi ni demee la mais sinon man ak moom ñooy ñëw def ko quoi. mais xam nga rek comme que gars yi tamit dañoo bëgg a développé ci ci ci ci freestyle bi moom jee génne di ko clash waa Afrique ak yenn new génération bi. parce que loolu dafa am lu tax quoi tëb ma tëb rek di clash. di clash quoi waaw dafa am lu tax te xam naa incha allah loolu. ok non loolu dañ ciy ñëw dañ ciy dem déjà léegi léegi nii quoi parce que gis nañu single freestyle bi quoi donc yow ak lu Brick qu'est-ce qui se passe quoi. waaw Akhlou maanaam mën naa wax ne man ak Akhlou Brick maanaam maanaam deme su suñu lien yi demeewu fa noonu quoi. ok lan moo lan moo waral loolu. waa jàmmu lañ mës sa seq ba ci seen bro bi ñuy wax Mr Atou. ok Mr Atou xam naa kuy déglu rap bu xam nga kuy Mr Atou quoi. ok yàgg na di f m moom moom day côtoyé gars yi quoi mm-hmm. bëggul mag ci gars yi sax waaw. mais moom dañoo amoon nag ay liaison yu nice. ok bi ñu amee ay liaison yu nice nag mu invité invité nañu ñaari yoon f m waa groupe Friend Family ñu ñëw def fa mhm. léegi nag benn jour benn jour ñoom ñuy teg seen concert stade comme que ñun tamit ay artistes mbuurwaa lañ. Mhm. di prouver di def lu nice. aatu ñu link ko aatu ni ah yoon la ngeen ñëw def foofu noonu affaire. léegi mu ni yor ma liste bi mais ñas moom moo yor liste bi. ok léegi mu jël numéro ñas jox ma ko. ok ma woo ko nga ni ko aatu moo ñu boole. léegi ñax moom nag ma ko woowee ni ko aatu moo ñu boole friend family la dañu waroon dañoo bëggoon teew xam nga comme que ay artiste rappeur lañ from Mbour te da ngeen di teg foofu concert bu mag boo xam ne public bi dafay nekk pour man yoon la maanaam ñun ñu ñëw wane fa suñu liggéey quoi. ok mais bi ñu ko waxee loolu nag mu ne ma liste bi fees na te ça bi mu def def naa maanaam des naa un mois. affaire bi jaaxal ma avant concert bi quoi. avant un avant concert bi yéen ngeen gis. Euh, bro bi pour mu dugal leen ci euh, artiste invité yi quoi. ci concert bi mu ne leen liste bi fees na. mu ne ma liste bi fees na. léegi bi ma nag ma ko mais mën naa laa poser benn question. Mhm. mu ne ma ah ban question la ma ko ban problème ngeen am ak artiste Mbour yi quoi. ok parce que dama gis ni maanaam. yéen seen boobu noonu nga doon waxal kooku lan lay représenté ak lu bëri. kooku bu ma juumul. bu ma juumul moom manager la ci waa Akhlou Brick. ok mooy seen manager. moom mooy seen manager quoi mooy ñas. lañ koy wax. ok mais est-ce que tamit yow lu tax jàppoo ne bi mu la nee groupe euh, liste bi fees na pourquoi jàppoo ne que bi fees na. waaw xam nga tax jàppuma ni liste bi fees na. Hmm. parce que concert bi maanaam des na ay mois. ok des na ay avant concert bi. waaw mais loolu mais la. événement événement bu mag la. parce que Akhlou Brick xam nañu ne que. Euh, dañuy teg ay affaires yu ngande donc au niveau de Mbour fii quoi am na ci benn concert annuel bu ñuy def euh, donc loolu lu mag la quoi ça doit être programmé mise en place bien avant deux mois avant jour J parce que sa doit être professionnel quoi waaw loolu dëgg la mais xam nga man li ma ci jaaxal maanaam mooy seen concert yi may gis yëpp maanaam artiste Mbourwaay ñi nga xam ne fii nii gars yi reconnaissance nañ leen quoi jox nañ leen respect mm-hmm. soo tuddee benn diw nga ni yee respect day def rap quoi day def lu nice seen concert doo leen fa gis quoi doo leen fa gis quoi doo leen fa gis ok ñoom looloo tax nag man bi ma nee liste bi fees na rek man sama xel bi foofu automatiquement ci loolu la dem ci loolu la dem ñii ok mais kon ñoom ñan la ñuy invité par exemple waaw seen i concert ñan ngeen fay gis presque ñi ñuy invité mooy booy nga xam ne dañuy soog a jóg quoi kenn xamul leen xam nga booy noonu taxul ñu naan rap mbuur quoi ok waaw mais loolu aussi est-ce que nekkul quelque chose de bien waaw bu fekkente ne que développé la. waaw maanaam parce que booy booy ñu jox leen seen chance si tuuti. mais man gëm na ni ñoom ñoom gëm nañ gëm nañ gëm nañ mbuur quoi. ok ñoom gëmuñu mbuur gëmuñu gëmuñu gëmuñu culture mbuur. gëmuñu maanaam ñoom seen bopp rek. quoi laa mën a wax seen bopp ñu gëm quoi ñoom seen bopp lañu gëm parce que xam nañ ni buñ fa invité benn friend family. friend family ak lu bëri ëpp ko dara. ok friend family day def rap rap bu nice. bis bu ñëwee ci concert bi ñoom xam nañ ni maanaam public bi mën na jeng dem côté boobu ko xam naa ñoom nag loolu la ñuy ragal quoi. ok mais boo fa invité benn xam stick xam ne waaw. fa ñëwee public bi mën na jeng dem ci côté boobu man foofu laay gisee quoi. parce que parce que maanaam fii dama gis ni tamit rappeurs yi fii amuñu benn problème ak gars yi gars yi ñoom ñooy chercher problème quoi. parce que tamit maanaam. buñ ko waxee mooy gars yi li jëntuwuñu ay Akhlou Brick Paradise parce que ñun xamante nañu Akhlou Brick yee maanaam Arafat ñoo bokkoon benn school muy muy muy référence moo ma rawee woon benn classe mm-hmm. mais bu buñ daan jàng di lañuy ñuy jiitlee amul sama temps awma temps noonu la demee quoi ok mais parce que hip hop moom clash ci la bokk d' accord ci clash ci mais dafa am aussi peace love and harmony and having fun donc euh, au niveau de Mbour donc Mbour rëyul rëy boo xamante ne nii Euh, artistes yi war nañ fi mën a nekk te duñu xamante wala duñu mën a demalante donc yow noo gisee euh, hip hop Mbour par exemple euh, lan moo ko teree dem en fait lan moo teree avancé hip hop Mbour man ni ma ko gisee mooy maanaam fii y a beaucoup quoi gars yi artistes yi nag laay waxal man ragale ma lu may wax quoi ay taalibe Cheikh Ibrahim lañ fii gars yi dañoo faux liggéey fii ñu ci bari dañoo foo benn budget rek laa ci xam ne kooku moom respect quoi muy pël bi mais ñi ci des ñëpp ay feegarees lañ pël bi tii mooy kijib kajab ah yee kijib kajab kijib kajab waaw waaw ñi ci des man ragaluma la may li may wax ñi ci des ay feegarees lañ ñi ci des ñëpp moom émission déjà ci caf ka mbedd donc xam naa ne que voilà second time dina ñëw quoi ëldu ëldu moom xoolal respect moom ba jamono ñun amuñu dara mais am na benn jamono di ko big up de passage ah. di ko big up quoi di respect Kajab. Kijib Kajab ko mu Kajab la ko. moom naajte la quoi parce que maanaam yàlla dëgg la bëgg quoi. right for real. te pour man tamit ñun maanaam xaw ma ba xam ay nitu dëgg lañ mais loolu la ñuy jéem a dund quoi. Mm, loolu ngeen di loolu la a moo tax oldu ji respect day def job bu nice ci hip hop mbuur woon moom maanaam instant yi gis nga hip hop mbuur sax maanaam presque jaaxaan na mais moom moo ci nekk di ko jéem a. mais ñi ci des ñëpp liggéey ci des kenn gëmu ci nguur du ma lim tur nag xam nañ seen bopp mais gëm gëmuñu temps bi quoi. ok mais euh, euh, comment ça s'appelle euh, yéen fu ngeen toll ci projet yi ak voilà à part single bi yan bagage ngeen defagum quoi. waaw waaw mais xam nga fële ak lu brique bi pareeguma. ah pare koo ci axlu birig parce que foofu. <laughs> xam nga foofu eh am ngeen problème ah. xam nga foofu foofu leeral quoi. ay ca ay ca ay bu waxee nii rek te gars yi mën nañu jàpp ni benn Mr AFM yi dafay di léeg-léeg. ok te demeewut noonu quoi man ahlu brick. billaahi wallaahi wa taalaahi man aw ma seen taal. ok wër na yàlla dara lu may xaar ci ñoom lijjantiwuma leen. waaw bu nekkul woon lii nii barki yàlla xoolal du ma wax sax ak ñoom quoi mais maanaam xam nga li ma bëgg a wax mooy. xam nga aatu man moo ma jox numéro ñas. léegi aatu moom bi ma joxee numéro Niass ma woo Niass wax ko loolu noonu kon ci concert bi. mu ne ma liste bi fees na. léegi bi ma ko posé question boobu ban problème ngeen ak ak artiste yi waaw xam nga sawaay ni ma sawaay ni ma yow wax ma fi nga nekk ma fekk la fa saaga ma ndey. déedéet waay. billaahi wallaahi taalaahi. Niass moo def loolu. waaw noonu la demee mu fekk ma mu ne ma wax ma fi nga nekk ma fekk ma fekk la fa saaga ma ndey bi ma waxee loolu nag xam nga ak man. bàyyi Niass direct quoi waaw. ak Baye Niass bi ak ñas bi ma ni waaw affaire bi jële ma kaw quoi ma ni ko waa waa sëriñ bi yow looy wax ni mu mu ni ma waxaat ma fi nga nekk ma fekk la fa saaga sa saagawaat xam nga ma ma ma ma ma ma dëgg bal bi quoi ma dëgg bal bi mais affaire bi jële ma kaw quoi parce que mënuma koo saaga fan tamit parce que yee ñun Cheikh Ibrahim mooy suñu sëriñ te ñas bi rus nañu koo wax di ci teg lu ñaaw ma dëgg bal bi quoi après ci suuf aatu wooma te mook aatu boobu ñoo toog aatu wooma rek wax wax ju naaj non ah man respect laa leen mos a jox loo wax ñes moom lay saaga nag ma ne ko lii de laa ko wax question laa ko posé mu saaga man tey man kii de xam nga nu mu demee noonu quoi. ok kon yow donc sa brief ak ak lu brief. foofu la jógee quoi foofu léegi nag loolu après man dama dama ko gas suul bàyyi mu seet sama gars yi waxuma leen waxuma ko gars yi ma rabandoon ba benn jour di jël siis mu invité DJ Art man li may wax yëpp ay preuve la ay lii la bi mu di jël yéen seen conseil yi lu tax comme question bi ma posé woon Niass aatu ni ko pourtant li nga posé nii benn rapport posé na ko Niass mais doo ko defe aatu mi nga xam ne moo ma doon conseillé moom moo dem ci bi wax loolu jour boobu te man affaire bi dëggoon naa bal bi waxuma ko sama gars yi waaw léegi ma ni lii sama gars yi buñ ko yëgee fii dina ñaaw ma dem wax ko gars yi gars yi jour dañoo mer ni pourquoi gars yi ñii di la saaga quoi noonu ci la ci la ci la ci laa dëfal gars yi leen non graaw nañ bàyyi bu seet loolu ci lañ bàyyi mu seet bàyyi mu seet bàyyi mu seet ba man tamit affaire bi mënu ma koo téye ma ne bii foog ma def son wax ak wax ak sawaay quoi looloo waral loolu ma def son wax ak sawaay wanaale tamit ni leen booy nga xam ne dañuy nekk fii waaw wan leen ni maanaam june ëppale wala ñu dara. wane sa talent quoi. wane ne xam nga yow hip dafa nekk di ko di waaw hip hop dafa nekk ci ñun wan wan wax leen tamit ni maanaam xam nga ñas ñii moo tax ñu may saaga ndey te man. ñii seen papa laa ci mais kon yow amuloo problème ak Akhlou Brick. waaw ñes nga amal problème. noonu la demee quoi. ok ñes amal problème mais ñes. comme mais c'est pas les éléments d'Akhlou Brick. mais ñes Akhlou Brick moo tax mu may saaga man loolu laa léegi yow classe bi da nga cee boole ñoom ñëpp quoi. ñoom ñëpp nga parce que ñoom waroon nañ ko mën a. parce que ñoom de un ay mbokk taalibe lañ quoi. affaire bi dafa waroon mën a naaj. mais selon toi selon toi Akhlou Brick est-ce que ñu ngi def dara pour hip hop mbuur mun a avancer. ñu fi dara ndax du prix gëmul mbuur. def fi dara à concert bi foo à part concert. bu ñu def actuellement ah concert boobu la. concert boobu bu xaalis bi ñu fay am duñ ko fi teg gëmuñu mbuur. Akhlou Brick mën nga koo gis Akhlou Brick maanaam mu mu def dara pour mbuur. dara dara mës nga leen a gis ñu taxaw di kaasal mbuur gisal mbuur lamp yi du tàkk tali bi gis nga tali bi tali tali mbuur bi gis nga ni mel. un groupe renommé Akhlou Brick ñëpp xam ko mais du toog télé sax ni lii jooyal ko buur. Ah social living. dafa am solo you know ci ci artiste ah surtout bu fekkente ne da nga nekk ténor man plus particulièrement je les connais pas ah Akhlou Brick je les connais pas mais j'avais juste entendu les concerts qu'ils font euh, ici euh, Stade Caroline Faye yi ñu fiy def annuellement mais. au fil du temps ngay jege artistes yi nga xamante ne ñu ngi mbuur di def la même chose que Akhlou Brick ci ngay gën a xam kenn ku nekk ben lu muy représenté ci gox bi mu dëkk donc c' important bu fekkente ne Akhlou Brick euh, seetaan ngeen lii aussi ben kii artiste la comme yéen ben clash nag dafa bokk ci hip hop donc social living aussi dafa bokk ci hip hop donc bu fekkente ne que daanu leen ko woon def ben de grâce faites-le descendez wàcc leen jege askan bi jege population bi faytal seen dëkk représente seen dëkk parce que mbuur da di tiitaroo mbuur da leen di sagoo waaw gars yi gis nañ nag fi ngeen di yóbbu drapeau bi ni ngeen di représenté mbuur donc kon kon gën leen a jege seen askan gën a jege seen population am na ci solo Prague Zep yaa ngi ci woon caf Kambed ak Real Copper Row yemaan mu invi amoon fi invité you know Mr. AF you know Mr. AF man yegg si nañu time to freestyle yéen a ma gën a nëw foog mu won ñu cafkaam yeah man Mr. AF yaa ngi ci cafka mbedd freestyle man cafka mbedd what's up cafka mbedd what's up cafka mbedd what's up rappeur gën a feegaloo ci këru aaduna ñoom di lay kiir seen bopp ñi ñoo ay pet loo fiir maa da fucking pop def ko def muy nice tey la nga sa jàng yaa ngi hip hop rakk bu ko jam yëpp wala rakk bu ko jam tey la nga sa jàng yaa ngi hip hop rakk fois booy wër yow ràpp naa ba gis ma da toog ko defati li may teg ci biir du bokkul ak yow li nga yàgg a gis sa bandi bandi noo fi nekk ku wéet yow xam sa baay li may teg ci biir du bokkul ak li booy di jaay jëmbal sa flow dog ma wàndi danga mën a sool yee bari ngay kap te wàññi fis yow li ngay tooy uh. classique du dee parce que tubaab moo may tukki waam man maa lay fàttali jamono ñoom pastouraam bu bàyyi booy dëb di dal ci bitu nigérien bi bu mesquin wax bi mu ngi nii pour get ko foog ñu mesquin. wala yëpp yëpp yëpp ñu bañ a dugg ci musique yëpp lisaan tàcca yëpp. Eh. ñu bañ a dugg ci musique xamuñu la bu ñu bàyyiloo hip li ñuy def du dund mala mais benn nit mooy takk bra zabi ci un jour kon wax ak fils de pit yi mooy def naa yow hors jour takkal noo sa tubay roo sa ëllëg bàyyi jokk bi ba nga may saaga ndey xam nga firee la yokk fit sa lamit gudd na nga ni xaar ma mar ci kaat gaay moo tax ma génn solo jàpp la def fawe kaay rab doon diine yow sa xib la mooy si jaada ba yéen a ngi rab di saaga te seede di émission ça débat seen xeetu rab bi mu koy déglu mooy perte sa temps dooleel sa temps ngeen di def pour joobal seen i di rab mel ni kuy taane sa gel bi ANB ñun moo ñu gënal ANB li fi nekk boo koy wax dafay metti xol booy xam ñu dara bu bom ko xoolal seeni sol maa leen woo ci rab fekk aw ma yow sa temps seeni gri kaw mënoo bosu sa temps rab bi jarul yuuxu soo waxee dinañ la dégg dem di dal di karaatee kaa ko ca déggal na lyric si leer kàddu yi nay ànd ak dëgg ci noonu la may jaare béggee waale ñu def killa muy neex dropping ak punchline lépp mu ngi ci biir sambuli ak sabar yi yow loo ci def mu ci biir mu def mu pochit gem bi daa bari fóotiin fi kenn gëmu fi kenn seeni jikkodoor siib man yeah man seeni jikkodoor siib man yow yow yow braque ze braque ze Mr. AF nga doon am yow time to freestyle you know ci caf comme bedd gat comme ruuf dara du sedd yop ndim nax nga kenn ñu ngi lay kébee à props you know téef téef you know seen info 8 TV yeah ñu ngi lay share la shout out lu bari kil la ma nekk that's what it is mais AF yeah loolu nice na yeah mais sinon AF euh, tey jii nii yow euh, soo doon apporter dara tey parce que déjà dañu seetlu ne hip hop booy yi léegi euh, defuñu lu dul clash ak égo trip bi dafa dafa raar pour booy yu engagé wu di def ay thèmes sensibiliser tu vois des chansons engagées dafa raar yow noo jàngatee loolu AF. parce que loolu man ni ma ko jàngatee mooy xam nga rek booy xool booy mujjee dugg ci rap ñoom xamuñu culture hip hop pour ñoom hip bi da ngay ñëw. pour make ci money quoi te hip hop bi maanaam loolu taxu ko woon jóg quoi hip hop maanaam révolution révolution la quoi parce que da xool loo xam ni sa askan maanaam mu koy jooy loo xam ni loo xam ni du yoon nga jël mic bi wax ko parce que looloo waaw looloo taxoon jóg hip mais nouvelle génération bi xam nga rek ñoom xam naa ni xam nga nu mu demee noonu mais maanaam ñoom ñoom ñoom focus suñ ci loolu noonu quoi mais loolu damay jàpp ni ñàkk xam kese la quoi mais est-ce que yéen nii tey ji yéen ñi nga xam ne yéen yéen nekk yéen a leen ancien tuuti ah. gën leen xam ci pop bi ah. est-ce que yéen a ngi leen di jege di leen encadré ci côté boobu di waxtaan ak ñoom di leen di leen di leen conseil di leen dolli naa leen hip hop lii la hip hop base yi lii la charte yi lii la tu vois un hip hopeur doit se comporter ainsi un hip hopeur ne doit pas se comporter ainsi est-ce a ngi def loolu waaw non non loolu nag defuñu ko quoi parce que maanaam maanaam nouvelle génération bi ku ci nekk maanaam xam nga rek maanaam boo boo bëggee ñëw ci ñoom naan leen non kon nii nga koy defee ak ñoom dañ la naan non baay ma man ma def li ma sentir quoi. ok booy dañ dëgër bopp quoi. waaw du dëgër bopp sax mais parce que tamit xam nga mënoo ñëw ci nit naan ko non dang nii nga war a rabee nii nga war a lii parce que pour man tamit da koy bàyyi mu def li mu sentir mais maanaam pour man yow balaa ngay def li bopp da nga a gëstu quoi. tëj ko tuuti parce que affaire bi du mekk moo ne ñun maanaam loolu nañ ko sóoraale te musique bi xam nga rek waaw dafa doy waar quoi. ok bu xaraamul sax maanaam. benn jour mës nañ ko laaj suñu mu xaddam muy Baye Demba si di ko jox wàccuwaayam mooy sama sëriñ mooy sama buntu ci Cheikh si benn jour mës nañ ko laaj mu ni sans mu ni musique mën nañoo jàpp ne xaraamul defin gi mooy xaraam. defin gi maanaam ci ki koy defin gi mooy xaram daal. ni ñu koy defee koy defee. waaw ni ñu koy defee parce que boo jël mën nga jël mën nga jël musique rap xam nga di ci teg ay textes yoo xam ni nit bu ko déggee da koy delloo ci suñu borom. kon loolu pour man message la rek comme message bi ñuy comme message bi imam bi di taxaw ci xutba bi jël micro bi di ko jottali. léegi am na boo yoo xam ne ñoom du duñu ñu teew ci jàkka ji léegi yow hip-hopeur bi kon xutba boobu war nga ko mën a jël ko askan waaw dëgg la ay for real yow tey jii looy dolli ci bopp Mbour tey jii nii pour ñu gën a mën a booloo wala lu ko gën a suqali tey yow yow yow sa xalaat pour lu suqali hip hop Mbour tey lan la mais hip hop Mbour moom man moom comme génération bu génération bi ci kaw moom amatuma ci ñoom yaakaar quoi waaye lu tax loolu si amatuma ci ñoom yaakaar pour booloo bi nii yaakaaruma ni dina mën a tee nekk pourquoi waaw parce que ay ay ay ay dafa am ay doxalin yu ñaaw yoo xam ne dafa xaw am dafa xa sax artistes yi fii nii te loolu noonu nekk du woon cër sax muy artistes yi muy yenn DJ yi ak yenn artistes yi dem na ba maanaam boo leen rombee sax maanaam salaamaaleykum ngeen si ko quoi salaamaaleykum te salaamaaleykum bi sax dalay déranger. da ngeen di jaayante affaire. loolu du jaayante affaire sax. la quoi kon. du jaayante affaire mais maanaam xam nga rek maanaam doxalin yu ñaaw la rek doxalin yu ñaaw yoo xam ne dafa am su diggante quoi dafa am ci diggante. rappeurs yi quoi. mais te loolu yéen ñëpp yéen yéen kenn mënu ci wax ne lii moo ko waral. waaw li ko waral moom li ko waral maanaam bari na quoi parce que mën na nekk xeeweel mën na nekk. mooy jaayante affaire bi may wax rek quoi. parce que nit ko xeebee nga koy nga koy mën a jaay affaire quoi. waaw boo ko xeebul doo ko jaay affaire. waaw mën na nekk xeebeel maanaam ñuy xeeb ñuy xeeb artistes yi yenn artistes yi comme yow da ngay soog a ñëw ci hip hop. booy ñëw dangay xam ni ñii dàq ñu na rab dàq ñu na juwaar mais ñoom ñoo dañ njëkk ci hip hop léegi benn instant xeebel boobu day am nag parce que xam nga rek ñoom liñ xamul yàlla la quoi moo tax da ngeen war a dem tarbiyu dem ci bàñes jokk xam seen borom boo leen ko defee nag après ngeen mën a dund quoi mën ñu néew lig bi waaw waaw yesaay noonu la demee fi mu ne temps bi njatt nañu waaw waaw donc euh, le mot de la fin c'est quoi waaw waaw le mot de la fin mooy maanaam maa ngi bëggee sama copain bi may rabandool muy Mister Barham. ok maa ngi bëggee tamit waaw maa ngi bëggee tamit gaañ bu am talent la xam naa sax. ok Friends Family bi nga ko jël. mais lu ko teree ñëw waaw waaw maanaam mooy loolu. parce que comme bii nii tamit Mr Af comme ci son bi rek lañ bëggoon détaillé looloo tax xam nga waaw moo tax waxuma ko ko sax d'accord d'accord waaw mais xam naa incha allah di nga jël friend family ci boppam parce que friend family moom moom moom mu ngi ci ay projet am ñu ngi joom at Vibe am na sax ay son yu ñu jot a parce que génn jot nañ fay génne benn mistake mistake boo xam ne tamit gars yi bëgg nañ ko quoi maa ngi bëgg steak ak Mr Ziz ak suñ police bi gars yi yeah man noonu la demee man yeah man kebe kebe everybody woowaa ah. ci wax ba ci force left and right black and white everybody kebe nañ leen char nañ leen di leen wax ne leen on était vraiment content et fier de vous présenter encore l'émission Thiafka Mbed voilà présenté par Koporo votre cher ami frère kébé kébé di leen wax ne leen second week ñu ngi ñëwaat aussi ak ay yeneen i vibes ak ay yeneen i eraf yu gën a tàng gën a xattafa ya bëndem yaamaan see give thanks and praise to almighty almighty one almighty Jah kébé kébé woowa give thanks mbaar mi music salaa leyk bëggoon naa jàllale tuuti tamit di ko wax ñas bu lu bëri man mënuma nekk ragal quoi ba Niass nee na du ragal te du ànd ak ku ragal sa waay man duma ragal quoi bu fekkee da nga foog ni say saaga ndey ñooñu nga koy def muy ñuy tiit di muy sedd kooku du Mr AF man taalibe Cheikh Ibrahim laa bëgg a doon kon su ma naree nekk ragal sawaay <laughs> mooy loolu quoi waaw sali laa dëkk boo amee looy bu dee da nga mën a xeex wala da nga mën a karaate fekk ma sali quoi man bu ma amee lu ma lay wax maay laay jël ñun on n'est pas violent. ay. Yeah.